sociaux yi moo tax ci jàngatub Assane Samb mu jàpp ni état ci boppam moo nekk ci risque bu fekkante ne dafa bëgg dugg ci xeex boobu état dugg na ci ab xeex digganteem ak presse bi bu ñu sukkandikoo ci l'observateur yéenekaay bi dikkaat ci taxawaay bi nga xamante ne jëriñ ju ñu dénk wàllub communication télécommunication ak économie numérique maître Moussa Bokar Thiam fas yéene na ko amal ak kàddu yu mu yëkkati mel ni kuy artu ñii di waa CAP di coordination des associations de presse presse ci boppam la ñu fas yéene note les échos di liberté de presse ak kaaraange taskatu xibaar yi di gis ni lu jëm ci wàllub légalisation moom dafa mel ni état yi ci Afrique moom la ñu jël ngir fas yéene di ko xeexee ñii di taskatu xibaar yi taskatu xibaar bii di Pape Alé mi ñu teg loxo ay sénégalais ci diaspora di ko nakarlu ci biir yoor yoor nag bëri na ci ñi nga xamante ne dañoo jël xeex bi rawatina ca biti réew ci biir réew mi Macky moom mu ngi mel ni tàmbale na liggéey bi ngir atum 2024 le quotidien campagne njaayum carte gi mu gis ni kon moom Macky Sall dafa tàmbale combat bi ngir am ndam ci atum 2024 di ko dëggal fësal sax kàddu njiitu réew mi ci xëtam bu njëkk di wax ni waxtu combat ci boppam moo daal di jot ngir atum 2024 2024 door na ngir njiitu réew mi ndax enquête mu ngi ñuy xamal ni lu toll ci benn million ak genn wala ci ay carte la fas yéene jaay moom njiitu réew mi moo tax yéenekaay bi jàpp ni ëllëgu Sénégal ak njiitu réew mi ci boppam lañu xamatul ak lum ci mënti doon njiitu réew mi ñetteelu mandat bu ñu sukkandekoo ci la tribune yéenekaay Macky Sall door na waaye Malick Gakou tamit toogul le journal di wax ci grand parti mi nga xamante ne kon démb la ñu investir seen jiitalu parti ngir mu doon candidat atum 2024 Gakou mooy candidat coalition Manko Yewwi Sénégal moo tax Dakar Times di ko duppee sax Gakou président président Gakou ak taxawaayam ngir atum 2024 moo tax Sud Quotidien jàpp ne lii weesu na candidature waaye moom borom géejawaay dafa mel ni kuy topp tànk kii di Ousmane Ousmane Sonko forum civil di topp jëf yu bon yi nga xamante ne kon ñu ngi koy nemmeeku ci réew mi ak xaalis gu baaxul bi nga xamante ne mu ngi jaaba jonge moo tax kuréel gi ci biir critique di ko ñaawlu ci biir bis bi le jour dikkaat nañu sax ci affaire faux billets yi nga xamante ne dana ko daal di teg loxo ci dirub benn ci ay bis kepp mu nekk koppar gu takku a takku te bokk na ci gox yi nga xamante ne ñoo ci gën a fës diwaanub Thiès foofee nga xamante ne duwaan teg na loxo lu toll ci 900 millions francs CFA waaye tamit ay euro ak i dollar yi nga xamante ne teg nañ ko loxo la libération xëyee tey tamit wax ci trafic yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko fan yi yépp libération wax ci opération bi nga xamante ne dikk def na ko ci labo de lavage bu ñu lokkarti ci diwaanub Malika le soleil yéeni kay def ab jàngat bu yaa ci li nga xamante ne kon moo jëm ci wàññi teg njëg yi ak taxawaay bu yees bi nga xamante ne état bu Sénégal am na ko waaye mu mel ne ci terrain bi ñii di commerçant yi moom ba léegi dañoo gumba tëxlu bu ñii di gumba tëxlu ñenn ñi mel ni ñuy neexal état ci boppam Walf Quotidien dikkat na ci wàññi teg njëg yooye nga xamante ne dañoo gis ni ni bëri na ci ay boutiquiers yi nga xamante ne ñooy sàkku état mu daal di leen mayaat ab diir ànd gësam bëgguñu may dara état bu Sénégal yéenekaay bi di la mandat di wax ci taxawaay bi nga xamante ne syndicalistes yi namu nañ koo am ak lu ñuy nas ne ay pexe ci beneenu plan d'action ngir wéyal seen xeex génney Sénégal fas yéene tàmbale seen xeex ca Qatar Rewmi Sport di ñu xamal tey ji ni champion d'Afrique yi moom yegg nañu ca fi nga xamante ne mooy Doha ngir tàmbale seen wàccaay ci biir laas tamit Aliou ak i ndawam yegg nañu ca Qatar ca Qatar